برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان ay ay suñu gaal motam sa ter Sénégal li moo waral tey Sénégal ay abdo toog don sa misaal. alhamdulilah Sénégal moo doon sa Sénégal. li moo waral tey Sénégal ay abdo toog sa tam sa Sénégal. li waral Sénégal ay sa Sénégal li ma waral tey Sénégal ay ab docteur doon la misaal kon gaal gaa ngi daw ci al ayeen waaye tey bi aw yonen demal nga seeti alquran daa xam na ñaas moom moo fi ma Abdoulaye yaa ngi Sénégal ma doon docteur tey Sénégal ba sab same man dama xool sal baa ngi ko weex ko ñuul ma xam ne ñees yaa ma nambaala bar ama ñees moo di sambaal ma Abdallah yaa suñu ma dam sa tool may Sénégal ma waral tey Sénégal ay Abdou Top dam sa misaal ku at bu international moo ma xamal do national bayaa bi international te mbir ci Sénégal na Abdallah yaa ba buñ sa góor fay Sénégal li ma waral fay Sénégal ay abdu misaal auzu billaahi gannaaw sant yàlla ak julli ci eh, ngi nii ci barabu mm, maam Alaaji Abdoulaye Niass suñu maam Euh, fas yéene euh, indi participation boo xam ne suñ mbokk suñu xarit Cheikh Mouhamed Nazirou Seck moo am yéene def ko ci li nga xam ne mooy liggéey bi ñuy yeesal zawiya Maam El Hadj Abdoulaye Niass muy président euh, PDG Medina Business di Mouhamed Nazirou Seck ñu ngi ànd ak magam Eh, Cheikh Tidiane Seck and ak magam Mambay Seck andak ak batay magam xaritam eh, Cheikh Tidiane Niass eh, ñu gën koo xam ci Cheikh Fanta and ak timet jaamam bi ñu wax Mbay Touré Mbay Mbay Diop ñun ño tew fi tay tewal ko ak man mi di wax ci Babou Lamine Samb bi yexé nak fekk nañ fi suñu sëriñ suñu nijaay suñu kilifa Cheikh mohammed mun xaamina Ibrahim Niass euh, ci kanam ki nga xam ne moom la sëriñ bi dénk liggéey bi di Cheikh Abdourahman Ndaw Al ñu fas yéene ubbi jotaay bi ci kanam sëriñ bi jox euh, Cheikh Seck mi nga xam ne euh, mooy grand frère taxaw taxawaayu waajuram tey di magam mu sànni ay kàddoom bu paree ñu jox sëriñ bi ak Cheikh Abdourahman ñoom nuñ defalee rek waaye balaa dara dinaa yëgal ne Cheikh Mouhamed Nazir foog ñu taxaw tuuti wax ne euh, ku neexa a ànd ak la ku neex a dimbale la ndaxte wax dëgg yàlla social ak lu baax rek euh, moo ko ñor te bëri na lu mu koy def loo xam ne du bë bëgg sax euh, nit ñi yëg ko wax dëgg yàlla keroog bi mu amee yéene bi bi mu ci waxee ak man mag moom toog ñu waxtaan ci biñ paree. Euh, dama oo am ñes mu papa daam waxoo ko mu rafetlu ko trop mu neex ko mu kontaan ci sawar ci lool daal di gaaw oo Cheikh Abdou maître ma ak moom rapport ñu waxtaan sur le sang ma jël euh, téléphone bi parce que Cheikh Nazir ñu wax li ñuy wax kon tamit euh, Cheikh sëñ Amba Niass moom nga xam ne mu buntu Cheikh Abdourahmane daanaka ci dëkk bi moom la moom tamit amal naa ko ci ngërmande yombal yombal gim ci yombal di ñaan yàlla yal na yàlla def tawféex comme que sëriñ baa ngi toog kàddu yi du mën a gudd asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay di am kontaan bu rëy ci daje bi nga xam ne dañ ko dajewaat nga xam ne yàgg nañ di ko dajee muy daje boo xam ne daje bànneex la ndax pay bi lépp lu ci xew comme ñu ko defee nii ñun ñi danañuy danañu yebal jox ñu teraanga ñu def yóbbu ko ci pay bi kon lii su amee dañuy wax ne la duñu wax ne lan moo waral lii wax dëgg yàlla yàgg da koo def ndax lii mu def nii defoon na ko ci bi ñuy defar tànt bi ci Medina Baye kon Cheikh Mouhamed Nazir dañ koy ñaanal yàlla yàlla guddal fay may fay wu gudd waan lay wer ah ñun da mbokk euh, olof dañuy wax nañ bu ñu nee diw baax na yéen wax na ndax mbokk yaa ko wax waaye ñun de ay mbokkam wax dëgg yàlla sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko waaw sant nañ ko bu baax gërëm ko dañ leen ñaan sëñ mu naa ngeen ñaanal ko yàlla yàlla may ko fan la gudd doole ko wér yaaram si barke yonent bi wax dëgg yàlla bi ñuy ñëw ma boolee ñëw comme ni ko suma yaay waxee Baaba Lewin Samb boole ñu Cheikh Fanta ak mbay Diop ak Mame Baye ñu indil ko teraanga joo xam ne da koy indi pour participation bi si janvier bi bi ñu ñëw participation bi yaakaar naa sëñ bi wax na ceeg Cheikh Mohamad Nazir ñu joxoon nañu 5 millions ne nañ ko jox Cheikh Abdourahmane mooy participation te nee na du wem fii incha allah rabbi feeg liggéey baa ngi yokk mooy bi ngi yokk ñaanal ko yàlla yàlla gën koo dëgëral may ko fan lu gudd waane wér ba lépp lu mu def ren bu déwénee yàlla mën lu ko ëpp yaana bi si barka alquran ñun famille Cekkeen da wax di yàlla ah sant nañ ko gërëm nañ ko mais nag ñaanal ngeen gën koo ñaanal di ñaanal ngeen gën a ñaanal famille bi yëpp nag sëñ bi leen famille Cekkeen bi yëpp kenn ku nekk am nga lii am nga yéene def ko waaw comme yàlla dogal na moom wóotu nañu si dañ koy ñaanal rek yàlla gën koo dëgëral si barka alxuraan maanaam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëñ bi ñu ngi sant di gërëm di jégalu si kàddu yi wax na jërëjëf jisaakumullah Cheikh Seck السلام عليكم ورحمة الله بولوني ñun de wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla rek parce que suñ waajur bu toogee sax amuñ ci kàddu waaye nag comme dañoo wax ñi sànni ci kàddu sëñ bi la ñuy wax na ko mu ñaanal Mouhamed Nazir yàlla musal ko ci làmmiñ musal ko ci cat wax dëgg yàlla dafay waxtaan ak ñun ci lu baree bari te bëri na lu mbaax yu bari yu mu bëgg a def yoo xam ne sax bëggoon di dégg yu mu yéene ci xolam ak yu mu bëgg a def yëpp ñu ngi dénk sëñ bi di ko dénk mu ñaanal ko yàlla yëpp yàlla def mu def ko ci fekkee ak tal te bu mu benn gàllankoor lu cheikh wax ak lu baaba wax yëpp lu ñu waxoon ni mën ñoo wax lu raw loolu nit ku baax la te nit moom bi nga dafa baax mbaax rek lañ man a wax mënuñoo wax leneen ñu ngi koy ñaanal yàlla daal yàlla musal ko ci làmmiñ ak cat musal ko ci yàqu ak yàqule ba lépp lu mu bëgg def ci pays bi rek yàlla yombalal ko dañ fekkoo ko ñaanal yàlla yàlla may waajuram wér yàggal ko fi ba ci kanam a ci barke alxuraan alhamdulilah salaatu wasalaamu ala rasulillah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di gërëm suñ sëriñ Maulana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima di ziyaare boroom barab bii di ma Alaaji Ablaye Niass di ci teg uh, suñ sëriñ Cheikh Mouhamadul Mun Amina Ibrahima ñas mii nga xam ne moom la xalifa bi dénk liggéey bi te mu nekk fii nii ci Léona Niassène dama koy accompagner rek waaye liggéey bi xalifa bi ci loxoom la ko teg loolu na leer ci bëtu nit ñi dafa nekk nit koo xam ne xëy na yu bëri yi ànd ak jamono il faut mu dénkaane ko moo tax mu wëlbatikuwaat dénkuñu ko ñun ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne li ñu fi dajale tey mooy jël benn per boo xam ne mu ngi jóge ci mbokk mu baax mbokk mu tedd mbokk mu ñu xam ci dëkk bi ci def lu baax ak maandu mbokk mu téye làmmiñam aussi ñu ngi koy dégg ci lu baree bari olof dafay faral di wax ne noo mel rek ñu xam ko noo mel rek ñu xam ko parce que dëkk bi ñëpp mbokk lañu dëkk bi ñëpp xamante donc soo nekkee ci lu baax nit ñi dinañ ko xam soo nekkee ci safaan bi yàlla nañ ci yàlla musalit yàlla buñ ko xam waaye nag kii dafa nekk ci lu baax ci lu baax li mu nekk nag mooy joxe alalam te yàlla rek tax nag parce que am na feneen fu ma dégg ñu ne def na fa alalam te buggut sax yu mel nii ñu koy def te itam munoon na ñëw teew di ko joxe te loolu yëpp fekk ko ci mu wëlbatiku jox ñu 5 millions yu toju dërëm cash en pour ñu def ko ci zawiya maamam bii di maam Alaaji Abdoulaye Niass ñu jox sëriñ bi mu ñaanal ko dénk ko dëgg-dëgg suñu amoon yeneen nit ñu mel nii xam nañ ni pay bi kon dana gën a dem ca kanam beneen bi ci topp maa ngi nuyu magam ji di sëriñ Seck teew fii di ko ziyaara di wax ne wax dëgg yàlla dégg nañ sa kàddu rafet na maa ngi nuyu aussi cheikh mii cheikh Tidiane mii nga xam bi ma ko xamee yàgg na lool sama kër gee ma dëkk ci kii moo tax ma am ko donc jafe woon na trop metti woon na trop mais moo yëkkati terrain bi jox ma defal ma kayit yi da occasion day am pour nga mën a sant nit ba pare wëlbatiku joxaat ma terrain bi mu dendal mu ànd ak facilité kon nag mbokk mu baax di gërëm aussi Baba Lamine Samb moom mii nga xam ne moo yombal mbir yëpp wax dëgg yàlla Baba ku baax la si Baba Lamine Samb beneen bi ñu ngi nuyu aussi balaa ñoo tëj Cheikh Ndiaye Seck mii nga xam ne moom it yëkkati na cinquante mille def ci ñun xeebuñ yéemuñ lépp lu ñu waay jox rek dañ koy jël def ko ci zawiya bi yal na yàlla barkeel la yal na yàlla yëkkati la loolu sax sëriñ bee ko waroon a def wasalaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah. bisimilah. الحمد لله والعبد لله والصلاة والسلام على رسول الله نجي دلو دي سنتي الله بباخ تي توفيق بي نيو أم تاي توك جوتاي بو خمني تخاو تخاواي بو خمني خمني ني كين ياكار أدناك الأخرة جرم نكو كوكو موي كان موي شيخ إبراهيم رضي الله عنه bayam ju tedd ji nek fi ak mbokam yu nek tedd fi gërem nañ ko te ñooñu luñu gërem rek yalla ko gërem ñu ngi sant yalla ci ci lolu bu mako bëggee gattal nak damay wax rek damay fatali rek wax bi nga xamne ne doon nako netali ne Maam Alaaji Abdoulaye mu baax mi ci mujj dundam daana ko wax diko ko répéter ne ko dom suma gannaaw ñatt yi dañ ci dégg benn benn danga dégg meloo ni sa baay wala nga dégg mel nga ni sa baay wala nga dégg yaa gën sa baay mu ne ko meloo ni sa baay leer na mooy toppoo sa yooni baay faale woo mel nga ni sa baay mooy lépp lu sa baay nekkoon téye nga ko ba réerut di la yokkoo ci dara mu ne waaye yaa gën sa baay li muy tekki mooy fondement bi nga fekkoon sa baay fonde ko tabax nga étage ci kawam wala ay étage ci kaw yàlla dafa def nag man damaa xaw a sax yéemu ak xaal parce que billaahi bërki démb rek laay am ku may waxtaanat ñu ngi dugg oto fàttaliku ma kan la ñu ñëw ba ci booru euh, marché Medina bi ma ne ko man de famille yi ma xam nga xam ne bi ma xàmmee xam naa leen ñuy famille yoo xam dañoo jaayanteeg baay wala sax ñu jaayante woon ak maamalaaji feddali ko ci baay ànd ak moom bàyyi fi ay njaboot xam naa ci famille boo xam ne famille sekk bi maa ngi seede ne bokk nañ ci famille yi nga xam ne doo dégg mukk luy soofanteel pays bi wala ma di ko ñàkkal fayda nga dégg ci seen i ndaw bu fekkee damaa juum ngeen wax ma dëgg la loolu man maa ko se li ma xaaloo mooy li ma koy seede bërki démbu démb tey lii am dafa mel ni suma xaatir loolu la doon jeex fan yooyu noonu te ak seegut du ma dara nag waaye nag loolu daal man yëg naa kon loolu loolu sant yàlla la tey seeni baay ak seeni maam bu ñëwoon te demuñ fenn demuñ fenn yàlla ko wax tax wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun mu ne képp koo xam ne danga ngaa nekkal yàlla effacé sa bakkan jihaat ci ba dee fekk la ci ku foog ne yaa da ngaa dee moom moo xamul luy dee yaa ngay dund dund boo xam ne moo gën a neex dund bi nga doon dund fii te yaa ngi wax say njaboot ne leen xëy bu ngeen xamoon xéewal gi ma nekkee fii te itamit seen place yéen seen place yi ñu leen préparé pour xéewal yooyu man maa ngi janoog moom kon yéen bu leen bu leen sonn bu ngeen paree rek ñëw bu ngeen paree seen mission rek ñëw dugg ci seen xéewal yooyu alquran a ko wax wa yastabsiruna billadina lam yalhaqu bihim min xalfihim لا لا خوف عليهم ولا هم ولا انتم تحزنون ها لولو يلا كو واخ كون نك لو مل نون سو امي دوم جو بوك تي فوفا اي واجورم مامام ماماتي مامام با تي بايام باي رك لا نياكار باي سين دك باي سين نجابوت باي سين لب نيو تي باي واي نك نيو في تفاتي وون سين بوب فاتي وون سين بوب كو جي داجال رك خامنا كي طالب لا ku mag ak ku ndaw góor ak ku jigéen tey tamit fegu nañ ba nga xam ne lépp lu loo xam ne bàyyi neexut bàyyi man déggaguma leen ci kon nag suñ ci boolee loolu rek doyoon na waaye soo ci boolee nag loo am jël ko def ko ci bàyyi loolu yi tamit nag beneen mbir la danañ ñaan waaye nag ñaan gi confirmé rek la dafa mel ni euh, luñ bind ba pare rek ki ko war a signé signé ko daanaka ñaan gi signé rek lay doon parce que am na ku ma ko wax barki démb Dakar ne ma waaw man damaa gis kii ndaw si bi nga koy ñaanal ñaan gi ñaan bi dafa dafa gaaw lool te man dafa amoon ku ma wax ne ma ñaan bu baax day yéex ma ne ko déedéet dafa am ñoo xam dañuy bind am ñoo xam dañuy kii bind euh, kii bi euh, projet bi mën na cee yàgg waaye kii signé moom benn seconde bi ci lay signé ma ne ko am na ñaan yoo xam ne signé la waaye ñaan bi siñe la fii ñu ko defee signature la zaawiya bi signature la dégg nga maamalaa ji mi tëdd fii ak Baye Khalifa ak njabootam gi signature la kon li may tëjee wax ji daal mooy la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon doomam Fatim Sayyidatuna Fatimatu ba mu ko taxawee ci kanam Abu Jahl défendre ko te benn góor ñemewu ko moom mu ñëw défendre ko bi mu paree yonent bi def na ko yàlla na la yàlla xamal li nga def moo tax Naziru ak yéen ay mbokkam Cheikh li ngeen def dafa rafet parce que mbokk yi tamit dimbali ko ci lu baax dafa am solo mënoon na bugg lu baax ngeen saboté ko ne ko non jaru ko demal def ko fële wala nàngam wala mu ne leen bu witeeree ngeen ñëw ngeen toog ba 9h ne ko ah ñun de dañoo xawoon na nu mu bu boobaa yi tamit benn mu jugal boppam wala mu jël ay jàmbur te boobu benn baaxu ci waaye nag ngeen wan ko ne ko li ngay def nii sawar nañ ci moo ñu gënal te ma wax leen benn affaire gis nga lim def nii ku yaakaar ne maanaam yéen yéen yéen yéen ñëpp la ko defal surtout famille

lu tax ñu teg ko ci loxo Cheikh Abdourahmane Ndaw parce que lu nekk dafa war a am ku koy ku koy gérer loolu rek waaye nag moom gérer boobu rek la ci am waaye nag teraanga la waaye ndokk moom bi mu xamee ne xam xamee xamee fi mu war a yem mu yem fa loolu yi tamit alal yàlla dana jël nit ci famille jox ko alal bu bari bu ëpp li mën a añee su amee xel dafay xam ne yàllaa ko teral ci biir famille bi rek mu am sagu téye leen ak i tamit nekk gestionnaire u alalu famille bi waaye ne moomu ko lu yàlla wax wa aatuhum min min maalillahi lazi aataakum joxe leen ci alali yàlla jëm leen dénk alal ji nga am liggéey ko ba ñàkk ko ba yàlla mu ne alalam la moom parce que gis nga ku la dàq liggéey ku la gën a muus ku la gën a xarañte abu dara kon xam nga ne alal ji moomu ko soo ko amee nang ko gérer waaye ku koy gérer nag def ko ci xabru maamalaaji ku koy gérer def ko ci darixu maamalaaji ku koy gérer def ko ci tirbinu baay bi ku koy gérer def ko ci feneen foo xam ne baay gërëm na ko ah famille boobu de ñëpp dañoo war a ànd taxawu la dégg nga loo nekk ñu nekk ci te waxuma ko sant Seck waaye man su ndaw sii sax xam naa ne ku ñàkk solo laa waaye nangeen xam ne xanaa ngeen ma ñàkk yëg wala ngeen ñàkk ma oo waaye lépp lu ngeen nekk lépp lu Nazirou nekk ngeen nekk ci ak moom bu ngeen ma ci soxlaa bu ngeen ma ooyee amul guddi amul bëccëg damay ñëw te soxloo ma ci dara billaahi soxloo ma ci dara maa ngi leen di waatal ci yàlla ne sox amul nit koo xam ne soxla naa ci yow dara waaw ku ma jox teraanga nag ma jël waaye soxlawuma ci nit dara parce que xam naa bët ki dem rek wax naa ko ci rajo bi nag ma leen bàyyi su ko itteel su ko alal itteeloon te amoon na sañ-sañ bi ndax charia aayewu ko ko te digal na ko ko sax waroon na fee mun a bàyyi ay usine ak ay Euh, société ak ay nangam yoo xam ne ay milliards milliards dollars lay nekk mu ne déedéet man dama xam commerce bi ngeen xam mooy business su bi ngeen xam xam ngeen ko mais man business su yàlla laa xam business su yàlla xam nga mooy lan lu ma am jox ko yàlla lu ma ñàkk laaj ko yàlla milliards yii bàyyil ma joxal leen ko yàlla seetaan leen ak yàlla ba xam joxe boobu bàyyi joxe woon ngir yàlla joxe léppam ngir yàlla moo indi na juróom yi

yal nañu yàlla may ngërëmal baay waaw suñ waa ju baax ji nag gàllaay moom dama bëgg fu ñuy wax rek nañ koy tudd parce que xabru bi nii mu mel nii man mu musuma imaginer ne technique mën naa maye ñu def ko ba mu yaatu nii am dégg nga mën a nga mën a jaar fu la neex dugg génn loolu daal dëgg-dëgg wane na ne xam-xam yi tamit lu nekk nañ ko bàyyee borom ñun mënoon nañoo ñëw rek tabax nii nangam nangam waaye nag natt ko ba nga xam ne

yàlla yi tamit il faut euh, wax naa ko démb ma ne leen waa ji ne ma lu tax gars yi di jugee bitim réew jugee ay réew réew ñëw di gàmmu si ci baay xanaa mënuñoo gàmmoo Nigéria wala gàmmoo feneen ma ne ko dafa am lu sufiyankey wax ar rijaalu bir rajuli wa rajulu billaahi il faut góor ñi ku ci nekk bu fekkee ne du yow la yàlla samp pour nga taxawu nit ñi da war a seet ki yàlla samp nga dem jox ci moom bu góor ñoo ñëpp jàppee ci moom taxaw ànd wàccuñ yoon wa yëf yi dafay taxaw li ma bëgg a wax mooy ñun ñëpp suñ summeeku rek jàpp ci bàyyi ku nekk domaine ba nga yëg sa bopp nga liggéey fa da ngay dal di yëf yi dafay dal di jaar yoon waaw mënuñoo ñàkk fu ñu fu ñu ay nit ñoo xam ne pays bi xadara bi ci ñoom lay sukkandiku ci le ci domaine bañ am bu dee ci xam-xam la bu dee ci technique la bu dee ci tabax la bu dee ci nangam la bu ko defee pays bi sukkandiku ci ñoom ci loolu ñoom it ñu sukkandiku ci ittey baay ak imam bu ko defee daal di defar defar yëfi loolu moo tax ma ne ko looloo tax kon nag ñi ngi sant yàlla bu baax di gërëm Cheikh Ndiaye mi nga xam ne xam naa ne euh, bu fekkoon ne yëf yi dañ ko ko waxoon wala mu fekk ko ci situation yoo xam ne kon dafay duble lii waaye dafa ñëw rek yem ci kenn waxu ko ko bu ko defee xam naa lam naroon a jëndee essence moom la moom la joxe aale nii mais yàlla yàlla yàlla am na essence yàlla na yàlla indi essence jërëjëf jëf waaw non li ma la wax mooy Medina moom fi mu ne nii Nazirou moom moom moom moom dugg na ci ci waaw dugg na ci bàyyi ba pare taxawu na bàyyi te wan na ne xam nga alxuraan dafa am lu mu wax euh, wala yansurana allahu man yansuruhu la yàlla wax yàlla dafa gëñ benn yoon ñaar ñett ne danaa dimbale ki may dimbale ñu ne bàyyi firil ñu dimbale yàlla mooy lan dimbale liñ ci xam mooy ku tële yàlla tëlewul mu ne déedéet dimbale yàlla mooy ngay dimbale kuy liggéeyal yàlla yàlla soxlawul ndimbal waaye kiy liggéeyi ngir yàlla soo ko dimbalee dimbale nga yàlla yàlla nag ne kooku waat naa ci sama daraja ne danaa ko dimbale te man nag inna allaha la qawiyun aziz man yàlla mii wax ne danaa la dimbale bul fatale man ma yàlla dama man te dama sañ te luma ma bugg rek lolu mën a am ci ci niveau bobu lay waxé ñu ne bàyyi waaw léegi lan moy misalam dimbalé dimbale yàlla te ya waxon ni alquran moy firi alquran mo lay firi alquran mu ne jàngal aya bi mu kontiné allazina in makkanahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amru bil ma'ruf wa nahu anil munkari wa lillahi aqibatul umur mu ne alquran firi na alquran nee na kiy dimbale yàlla moy ki nga xamné so amé alal xam-xam yëg ko xam-xam yëg ni am na ko am alal soo amee daraja xam-xam yég ko soo amee euh, man-man mbokk gi yëg ko soo amee euh, sañ-sañ wala nga am alal euh, dégg nga bu ñu jaawe yëpp yëg ko mu ne loolu boo koy def fekkee ne sa taxawaay noonu la sa alal noonu la yàlla mu ne maa waat ci yàlla ne danaa la dimbali man mi nga xam ne tewuma telewuma dara kon Medina business mm-hmm. international teg nañ ko ci teg dugal nañ ko ci compte baay rek waaw du bàyyi luñ dugal luñ dugal ci comptam du perte continuer leen ci dynamique bii rek jarut xër ba def loo mënut waaye lépp lu ngeen man rek ñu oote ko ngir yàlla def leen ko def bu sell joxe ko ba pare du mooyu ko bu leen ko lijjanti bu boobaa rek te yéen seen waajur yi comme ni ma leen ko waxee li ñu leen liggéeyal dëgg-dëgg loolu waxuma sax ngeen teg ci dara waaye li leen seen waajur yi liggéeyal su ngeen ko conver euh, conserver yàqu leen ko